juróom benn fukk ak benn almasi bi yéesu salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ji wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ni ngeen ko xamee diirub juróom benn fukki njàng yi weesu doon nanu gëstu ci mbindi kóllëre gu jëkk gi maanaam ci tawret ak sa boor ak téere yonent yi waaye ci émission bi weesu duggoon nanu ci kolore gu bees gi maanaam ci linjil linjil baatu araab la buy tekki xabaar bu baax bi te ci lu wóor xibaaru téereb linjil xabaar bu baax lool la ci képp ku ko gëm ndaxte day nettali ni yàlla feeñale doomi aadama musalkat bu am doole ni mu ko dige woon bu yàgg bala nuy dugaat tey ci linjil dina baax lool sunu mënee fàttaliku lu tax yàlla fasoon yéene wàcceel doomi aadama ab musalkat ndax mën ngeen a fàttaliku li xewoon bés ba aadama ak awa defe bàkkaar ci tawretu musa gisoon nanu ci ni aadama tàbbale woon nit ñépp ci nguruk seytaane ak ci nootaangek bàkkaar bàkkaaru aadama taxoon nu judd ci ndëngte nun ñépp ndaxte ni janax dul jure lu dul luy gas noonu itam la aadama mënula jure lu dul luy def bàkkaar te sunu bàkkaar daan nanu ba amunu menn pexe ngir jubal sunu bopp ci kanamu kinu nu wara àtte waaye nu ngi sant yàlla ci mbind yonent yi jeexewul ci nettali bàkkaaru aadama ndaxte ca bés ba aadama ak awa bàkkaare yàlla tàmbali woon na xamle pexe mu rafet ngir wàcce ramukat bi naroona musal doomi aadama ci nootaange seytaane ak bàkkaar ca bu lëndëm boobu yàlla yëgle woon na ni ramukat bu sell boobu waroon na juddoo ci jigéen rekk ndaxte almasi bi naroon a nekk musalkatu bàkkaarkat yi mënula jóge ci doomi aadama yi tax bàkkaar ci yàlla dong la war a jóge kon nag mbokk yi nanu dellu si léegi ci téereb linjiil ba gis ni yàlla amale limu mu woon ci mbirum ramukat bu sell bi naroon a juddoo ci janq bu mësula ànd ak góor ci njàng mi weesu gisoon nanu ni malaakam yàlla jibril feeñoo benn yawut bu tudd sakariya yëgal ko ni mu waroon a jure ak jabaram doom ju tudd yaxya muy ki naroon xàll yoonu ramukat bi léegi nag nanu jëm kanam ci linjilu luk saar benn ba gis ni yàlla jabale malaakam ci benn janq bu tudd maryaama mbind mi nee na bi elisabet yaayu yaxya nekkee ci juróom benn weeram yàlla yónni malaakaam jibril ca dëkku nasaret ca diwaanu galile mu yebal ko ca janq bu ñu may waaju bokk ci askanu daawuda te ñu koy wax yusufa waaye àndaguñu janq baa ngi tudd maryaama malaaka ma dikk ca moom ne ko jàmm ngam yow mi borom bi defal aw yiw mu ngi ak yow waxi malaaka ma daldi jaaxal maryaama muy xalaat lu nuyoo boobu wara tekki malaaka ma ne ko bul ragal dara maryaama ndaxte yàlla tànn na la ci yiwam dinga ëmb jur doom ju góor nanga ko tudde yeesu ku mag lay nekki te dinañu ko woowe doomu aji kawe ji borom bi yàlla dina ko jébal nguuru daawuda maamam noonu dina yilif askanu yanqoba ba faaw te nguuram du am àpp maryaama laaj malaaka ne ko naka la loolu mën a ame man de janq laa ba tey malaaka tontu ko ne xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina li yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañu ko woowe ku sell ki doomu yàlla ji elisabet sa mbokk mi it dina am doom ju góor ci màggatam ki ñu doon woowe ku mënula am doom mu ngi ci juróom benn weeram ndaxte dara tëwul yàlla maryaama ne ko jaamub borom bi na yàlla def ci man li wax ci noonu malaaka ma di dem nanu taxaw fii ngir waxtaan tuuti ci li xewoon bi malaakam yàlla jibril dikkee ca maryaama gis nanu ne maryaama janq bu fonkoon kàddug yàlla la woon te ñu may ko jenn waay ju tudd yusufa waaye àndaguñu te war xam it ne yusufa ak maryaama ñoom ñaar ci askanu buur bi daawuda lañu bokkoon loolu lu am maanaa la ndaxte yonent yàlla yi yëgle woon nañu ne almasi bi dina juddu ci janq yëgle woon nañu itam ne dina bokk ci askanu daawuda te ngir kenn bañ a juum am na leneen li ngeen war a xam ci mbiru maryaama mooy lii maryaama doomu aadama la woon ni nun ñépp te naka noonu dafa judduwaale woon jikkoy baakaar faawu nu wax ko ndaxte am na ñu bare ci jamono ji ñu bëgg a teg maryaama ci palaasu yàlla ba di ko jaamu te di ko ñaan waaye loolu aram na ci lu wóor maryaama ku jara naw la ndax mooy ki yàlla tànn ngir mu indi almasi bi ci àddina waaye yiw woowu ko yàlla jagleel taxul mu yelloo jaamu ndaxte mbind mi nee na nanga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rekk léegi nag ci aaya yi nu soogay jàng gis nanu ni jibril dikke ci maryaama ngir xamal ko ne moom mooy janq bi yàlla tànnoon ngir jaarale ci àddina musalkatu bàkkaarkat yi te gannaaw loolu jibril waxoon na maryaama nan lañu wara woowe doom ji mu wara jur mu ne ko nanga ko tudde yeesu tur woowu di yeesu mu ngi tekki yàllaay musal waaye am na weneen tur wu jibril tudde almasi bi ndax dégg ngeen ko dafa ko woowe doomu aji kawe ji waaw moom la jibril waxoon jàngoon nanu ba noppi e, ci saboru yonent yàlla daawuda ni yàlla woowe almasi bi doomam te léegi dégg nanu ni malaakam yàlla mii di jibril it tuddee almasi bi doomu yàlla mbokk yi xam nanu ne ñu bari e, bu ñu déggee tur wi di doomu yàlla dinañu wax ne ah loolu mënula am mukk astafurlaa wante léeb bu yàgg dafa wax ne bala ngay fel gémmiñu sàmm nga xam lu mu walis naka noonu it bala ngay xeeb tur wii di doomu yàlla war nga fexe xam lu muy tekki ci mbind mu sell mi dañu ciy tudde almasi bi doomu yàlla ji daanaka téeméeri yoon ak ñaar fukk ak juróom kon nun ñi wóolu mbind yonent yi ñemewuñu weddi ne yàlla dafa tudde almasi bi doomam li nu bëgg a xam kay mooy lu tax yàlla tudde ko doomam li nu war a jëkk a xam nag mooy li tur woowu di doomu yàlla tekkiwul tur wi tekkiwul ne yàlla dafa am soxna ba am ci doom mukk kuy xalaat lu ni mel mu ngi sosal yàlla yàlla mooy aji kawe ji te du jur doom ni ko nit di jure mukk loolu dafa war leer naññ ci sunuy xol ak sunuy xel amuñu jot tey ngir faram fàcceel leen lépp li tuuru doomu yàlla di tekki waaye li ngeen war a xam tey mooy lii tuur woowu tekkiwul ne yàlla dafa am jabar ba am ci doom yaakaar nanu ne loolu jafewul a dégg ndaxte fii ci Sénégal dañuy faral di tudde doomu senegal képp koo xam ne ci réew mi nga dëkk moona Sénégal mësula am jabar bay am doom boo demee bitim réew dañu naan la doomu Sénégal nga waaye loolu taxul senegal di sa baay wante dafay wone ne Sénégal nga bawoo fa nga jóge kon noonu la itam ak yéesu almasi bi yàlla dafa ko woowe doomam ndaxte ci yàlla la bawoo ci asamaan la jóge laata muy judd sax mu ngi nekkoon ca yàlla ndaxte mooy ruuwu yàlla almasi bi mooy kalimaatullah di kàddu gi nekkoon ak yàlla ca njaal benn ka moom la mbind mi wax bi mu naan ca njalbeen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon moo di ki nekkoon ak yàlla ca njalbeen ga ci moom la yàlla jaar sàkk lépp amul dara lu ñu sàkk te jaarul ci moom kàddu googu ñëw na doon nit dëkk ci sunu biir amin waaw almasi bi mooy kàdduk yàlla gi jóge asamaan juddu ci bindu nit te nun ñëpp xam nanu ne yéesu almasi bi amul woon baay ci kaw suuf léegi nag su fekkee ne amul woon baay kon fu mu jóge doomu kan la dégluwaat leen li jibril waxoon maryaama mu ne ko xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañu ko woowe ku sell ki doomu yàlla ci xëy na dégg ngeen ñuy wax naan waaw waaw xam na nu ne yéesu amul woon baay ci kaw suuf waaye soloom sorewul ndaxte yàlla dafa bëggoon a wone kàttanam rek ndaxte yàlla sàkk na aadama te amul ndey amul baay gannaaw loolu mu sàkk awa mu am baay kese maanaam mu defare ko ca farga mu jële woon ci aadama kon ngir wone kàttanam yàlla sàkk na yéesu ci jigéen kese loolu rek a taxoon yeesu amul woon baay ah mbokki déglukat yi ci dëgg-dëgg yàlla boroom kàttan la te dara tëwu ko waaye ci lu jëm ci juddug yeesu cib jànq war ngeen xam ne njëriñam weesu na fuuf foofule weesu na wone kàttanu yàlla rekk bu leen ci kenn nax juddug yéesu ci jànq ay junni at gannaaw ba yàlla sàkke aadama ak awa am na lu ko waral ndax xam nga lu ko waral yow mbind mu sell mi wax nanu ko bi mu naan yéesu almasi bi gane na àddina ngir musal baakaarkat yi looloo tax mënul woona jóge ci góor gu taq baakaar ni nu ko gise woon ba noppi ci kaw pexe mi yàlla rabatoon almasi bi dafa waroon a tuur deretam ni sarax suy fay baakaar naka noonu fokk mu nekk ku amul benn tooñ mel ni xaru tabaski mu sikkul te wàññeekuwul xalaat leen ci ndax boroom bor bu rëy mën na fayal ñeneen ñi am bor déedéet ki amul bor rekk a yelloo fay bori ñeneen ñi naka noonu itam almas bi dafa waroon a nekk nit ku amul benn boru bàkkaar ngir mu mënal fayal doomu aadama yi seen boru bàkkaar yàlla dafa bëgg nu xam ne almasi bi ak doomi aadama wuute nañu lool nun ñépp dañu mel ni suuf su tilim ndax suñuy bàkkaar waaye yéesu almasi bi dafa mel ni taw bi jóge asamaan ku set la te sell ni yàlla sete te sell looloo taxoon yàlla rusu ko woowe doomam kon nag mbokk yi am nanu yaakaar ne su ngeen fi jógee tey seen xel dina gën a leer ngeen gën a xam lu tax yéesu almasi bi waroon a judd ci janq te lan la tur wi di doomu yàlla di tekki ak lu mu tekkiwul ngir àggale émission tey bi nag danu bëggoon jàng li nu bind ci linjilu màcc ci mbirum juddug almasi bi ndaxte ay weer gannaaw ba maryaama ëmbe yàlla yebaloon na malaakaam ca yuusufa mi nara nekk jëkkëram ci loolu mbind mi nee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 waaye àndul ak moom ba keroog mu mucc jur doom ju góor mu tudd ko yéesu amin kon nag fii lan war a yem tey waaye bu soobee yàlla beneen yoon dina nu jëm kanam ci linjiil ba gis ni yéesu almasi bi juddoo woon wante su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li malaaka ma waxoon yuusufa ci mbirum almasi bi bi mu naan ko nanga ko tudde yeesu ndaxte moo di kiy musal xeetam ci seeni bàkkaar